allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين afalaa yanduruuna ila al-ibili kayfa xuliqat wa ila as-samaai kayfa rufiat wa ila al-jibaali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat wa dakkir innama anta mudakkir lasta alayhim bi musaytir illa man tawalla wa kafar fa yuadibuhu llahu al-adaaba al-akbar inna ilayna iyaabahum summa inna alayna xisaabahum allahu akbar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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar assalaamu aleykum.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

illa bima shaa wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard wa laa ya'uduhu hifzuhumaa wa huwa al-'aliyyul 'aziim allahumma bi haqqi wajhillahi ta'ala al-karim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa xasim abdaka wa xadima rasulika min kulli ma yasuuhu aw yadurruhu bi qadri azamati datik wa kullahu bima yasurruhu wa yanfaxuhu wala yadurruhu bi sayin ma ila duxulihi aljannata allati wu'ida almuttaqun amin ya rabbal alamin wa habli kulli man taallaqa bihi kulla maxtat lahu min manaafi'i dunya wal axira amin ya rabbal alamin asalaamualeykum mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen sant ci sëriñ ci turu sëriñ bi cheikh mouhamadul muntaqa ibnu cheikh mouhamadul bachir ibnu cheikhul xadim di ko sant fu cant mën a tàmbale ak fu mu yem di ci teg président de la république Macky di ci teg le président de Abdoulaye Wade di wax sëriñ bi taalibe yépp bég nañu ñoo ngi ñaan ci màggug jaamu yàlla gi sëriñ Touba jaamu woon boroomam ba mu fayee ko lii nga xam ni sëriñ bi jenn yitte la yoroon benn yitte la amoon mooy lislaam mooy jaamu yàlla mboolem seen jullit yi ndax fii këru diine yépp a nga fi ñépp ñëw nañu wuy si la ñi nga bokkal lislaam bi yépp muy këru diine yi ba ci bitim réew ñépp ñëw nañu wuy si la teerule la ñi nga xam ne ñii yaa leen woo ci ubbiteeg gi nga xam ne mooy ubbiteeg jumaay Masalikul Jinaan jumaa ji nga xam ni yàlla moo ko fayee Serigne Touba ci màggug jaamu yàllaam ga nga xam ne bii moom la jaamu woon yàlla ci natt yu rëy yi nga xam ni suñu borom tegoon na ko ko nga nekkal ko fi nekk ci kanamu njaboot gi di dimbali ñëpp di tette ñëpp di woote jàmm ci réew mi di ko woote ci àddina bi yëpp. ñoo ngi ñaan ci màggu suñu borom yàlla na la fi yàlla yàggal wéral la li nga bëgg yaa ko xam Mbàkke yàlla na ko yàlla def te bëggoo dara lu dul yëkkati baatu lislaam baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moom la sëriñ bi amoon di ko yëkkati moo doon dundam moo doon nekkam nga nekkal ko fi di ko yëkkati di ko yëkkati ngir diine ngir lislaam ñu ñu ñuy lay santale sa ñaari gan yu baax yi yëpp nga xam ni ñoo nekk fii ñuy doomu réew mi ni nga ko waxee kii di bàyyi kii di doom yàlla dajale leen ci sa kippaar àddina bépp a ngi lay sant ñëpp a ngi lay gërëm ñëpp a ngi ñaan yàlla yal na yàlla yokk jàmm ci réew mi yal na yàlla yokk wërsëg ci réew mi yal na yàlla yokk xéewal ci réew mi sëriñ bi li ma taalibe yi waxoon ni naa la ko wax mënumaa wax lépp ndaxte li taalibe yi yéene woon ëppoon na lool waaye jotaay bi moo xatta tàng waaye sëriñ bi na la biir nii taalibe yëpp a ngi lay sant cant giñ la sant nag du dara li tax li nga leen teg ci lislaam teg leen ci woote ci baatu kàlli eh, kàddu suñu borom gi di laa ilaha illa allah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi kon maa ngi gàttal kàddu gi di la wax sa mbokku lislaam yëpp wuy si nañ la sëñ papa Malick mii moo fi tee too teewal sëñ Babacar Mansour ak délégation kër diine yëpp koo gisulit ñëw na fi te teel na ñoo ñëw ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di sant président Macky Sall di sant président Abdoulaye Wade di sant tamit Cheikh Mouhamadoul Bachir mi ngi ñu boolee woon liggéey bi ba liggéey bi mel nii ba tey jii ñu jël ko di la ko jébbal nga di ko jébbal l'islam bi yëpp kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax aleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaye ñoo ngi lay biral tamit sëñ bi cant gu wér a wér a ñu ngi ma boole loon mbéykey bi di ci jéetal sëñ Moussa Nawel mii nga xam ni dafa nekk ci sa ginnaaw doon sa taalibe doon sa lépp kon ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax asalaamualeykum wa rahmatulahi taala barakaatu. sëriñ bi nee na ñi ngi sant sunu boroom bu baax a baax a baax a baax. di sant borom liggéey bu rëy bii dundam gépp mu nekk diggante yàlla ak yonent bi di ko sant bu baax a baax ngi sant mboolem kilifay diine yi nga xam ne teew si nañ fi ak ñi nga xam ne amoon nañ yéeney teew si fi wala ñu wa ñu yónnee wala ñu am ngànt ñi ngi sant ñépp mboolem bokk jullit yi mboolem bokk taalib yi gis nañ taxawaay bi bu baax a baax a baax kilifa diine gum a doon kilifa ak diine gum a doon muy mbirum boppam xam na ne kenn jiituwu ko jë loolu ñoom ñëpp xam nañ ko wane nañ ko di sant bokk jullit yépp kenn ku ne góor ak jigéen mag ndaw kenn ku ne jàpp na ne mbir mi sa mbirum bopp la noo ngi gën sant nag ci yàlla dégloo ndigal li mooy digloo noo ngi gën a sant sunu borom bu baax ci jotaay ñaari kilifa yi toog ci bokk ak ñun liggéeyu farata sunu borom ji nga xam ne moom la ñu bokk ñoom ñaar nag mën nañoo taxawal réew mi yépp kii day taxaw taxawaayu waajur kii day taxaw taxawaayu doom ñoom ñaar day mel ni taxawal nañu réew mi yëpp noo ngi leen di sant bu baax di leen sant ji jataay bii nu yàlla boole noo ngi gërëm bu baax ñoom nag ñoom ñaar nag la ñuy gën a ñaan suñu borom ñoom ñaar yàlla yéwénal seen mbir yëpp yéwénal seen diggante bu baax a baax bu ko defee mbirum réew mépp day yéwén ñun ñoo ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp ñoom ñu jox yàlla njukkal sunu borom teral na leen ba noppi lu leneen lu ñu gis lu leen neexut ci seen bopp loola dogalu sunu borom la sunu boroom jaamam bu mu cëral in fokk mu nattu la kon luñ gis lu leen naqari ci seen bopp rek sequñu ko yàlla moo ko dox ci defaram waaye yàqul fowul juumul te mooy def mooy dindi kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom ñaar ci jataay bi di leen ñaan ci sunu borom yàlla def liñ bëgg ci ñoom réew mi gën a defaroo ci ñoom ñi ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp itam ñu delloo yàlla njukkal sant ko ci lim leen defal nañu muñ ci lim leen teg te xam ne seen njëriñ képp lay doon waaye nañ ko wëlbati ñoom ñëpp jëf ko muy yéene ju rafet muy jëf ju baax loolu mooy nattu bi nu yàlla nattu nun ñëpp tabaraka alladi bi yadihi lmulku wa huwa ala kulli shay'in qadir moom mi nga xam ne moo bind dund ak dee ngir mu nattu leen ci dund googu ba ba sunu borom sàkkee dund sàkk dee lim liñ ci wax leer na nañ defe ko lu dul def nattoo rek di seetlu li ci ku ci gën a rafet jëf loolu leer na nañ laay jooju doyoon na sëkk alxuraan ay junniy junniy laaj waaye laay jooju doyoon na sëkk nañ ko dégg bu baax te jëfandikoo ko jërë jëf ñi ngi sant bu baax a baax a baax. jëwriñ nee na nee na sëñ bi nee na Pape Malick mii. nee na ñi ngi koy sant di ko yónnee ak cant nee na mën naa fab cantam jaarale ko ci Pape Malick mi mu jëm ci kilifay diine yëpp ta na tabaarakallaahu dara ump ñu ci moom xam nan ko bu baax ba muy gën di ndaw laa ko xamoon ba léegi si doxin wu rafet rek laa xam ci moom loolu rek kon niñ koy sant bu baax ñu koy jote tant mu ne Pape Malick nee na ne Pape dafa am lu bëgg sëñ bi ñaan ko mbokk yi fi daje di bokki deret kenn ku ne yéene bi nga am ci sa moroom yéene bi nga am ci sa moroom bokki taalibe yi fi daje kenn ku ci nekk yéene bu rafet bi nga am ci sa moroom yal nay seen njëggal yowmal xiyaama yal seen njëggal yowmal xiyaama dara yàlla bu leen yàlla topp dara mën na ko ci barke yonent bi man na ko mën ci barke mag ñi waaw kon sëñ bi gisaako laa waaw waaw jawri nit nee na sëñ Mbàkke yu fay nee na ñi ngi gërëm Aly nguy njaay mi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur bu baax ci taxaw li ko président santoon lépp def na ko lépp mën na mu ne waaw ah, daf ne sëñ bi daf ne daf ne dafa bëgg nga dellu ci néeg ma ne ko daf la sant déglu rek li mu la waxoon ci biir ni baayu bàyyu réew mi kii mooy doomu réew mi nee na loolu rek lay wax ni ñaar ñëpp war ngeen sant yàlla te ngi leen di ñaanal di leen bàyyi xel loolu rek la wax en résumé. bi rajo bi moo moo doy

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين